sama heure la euh, booy tardé du ci man xam nga boo yorul avion yor oto embouteillage bi ci mbedd mënoo ci dara teel a jug ak naaj ji <laughs> naaj jug ci yem. waxoon naa la secret Dakar gëmuloo ma. wallaay wallaay dëgg la Dakar da ngay jaay say nelaw. Uh-huh, mais kuy arrivé euh, chaque jour heure bu baax bi bu tardé <laughs> benn fan dañ ko koy baal <laughs> maa ngi lay nuyu ak euh, auditeurs yi mais El Hadj fi ñu toll nii daan corona ban étape lañ toll fi ñu toll nii. Hmm? gars ñu ngi boo demee ci ay Angleterre kii da nga baal nag bu may wax ci yenn dëkk yi parce que dañuy xool foofu. waaw dañu ci Angleterre kii yi ay France ak yooyu ñu ngi wàññiloo nit ñi. tekki masque yi tey jii comme stade yi. ngeen demee takk leen seen masque mais li ngeen euh, li nga xam ne moom la wax ngeen toogee ko ngeen fonk ko te bañ euh, mais ñu ngi hmm. tekkiloo masque yi di wàññiloo euh, nit ñi kii yenn yeeg yooyu kon hmm. yaakaar naa ni. mais foofu nit ñaa ngi def liñ leen sant. moom laa wax. Ah, bi ko oyofalee ñoom est ce que lañ leen wax ñu ngi koy koy def loolu rek mooy problème bi fii tam oyofal nañu xam nga. Eh, fal nañu ubbiwaat nañ mbiri yi même couvre-feu bi sax yóbbu nañ ko ba 11h day ce que je n'ai jamais compris moi couvre-feu 11h Sénégal 11h mënoon nañ ko bàyyi yëkkati benn yoon. non man li daa xóot lool. maintenant pour en revenir ci décision assouplissement yi am na fii dem leen lañ wax waaye nag nañu nañu ànd ak masque yi waaye fii yow li nga seetlu fële fi contraire bi nga war a seetlu nit ñi dañoo dañoo gën a dindi masque yi ca loolu c'est regrettable donc il faut que nag ñu delloo buum ca boy boy ga loolu mënut a ñàkk. te ñu ngi koy continuer di am ba tey. ci lan kaay. feebar bi waaw bien ah. sûr. Mm-hmm, mm-hmm. kër docteur waye nañ ci njàmbaar gu matan ah, globalement. globalement dafa am loo xam ne lu lu lu metti du tuut xam nga benn bakkan sax ëpp na. Mm-hmm. benn cas sax ci ay patients ëpp na. waxuma la ju eh, nekk tegal mais boko ko globalement gàccee ngaa laa ma ñoom maintenant fii problème bi rek mooy ñun. moo tax ñu ko nit waxtaan suñu biir booba ak léegi ñu ngi xëy rek du bari wax du am jot waaye euh, wareef la parce que loo xam ne tànk fi nii di jàmbat looy jàmbat benn rek bu fi jógewul di nga jàmbat suba ñeent kon lii farata di wareef mooy mu jóge fi moo waral waxtaan yi nag nañ ko ne di waxante suñu biir rek du ñàkk

ni nga ko waxee. dëgg ci kanam nga di pose le débat ci dëggantaan. dëgg te nga ubbi téléphone bi nga. déglu déedéet déedéet man damay animé déglu leen nga xool. man damay animé. Mm-hmm. mais Sénégal li ñu def succès. ak titre buzz mooy wax ju bon. ku la dàq saaga léegi ku la dàq wax wax ju rëy. léeg nga dégg sax kilifa pour am buzz rek ñu reprendre ko ni ñu koy waxee ak euh, xeetu definu tasum xibaar léegi pour que ñu reprendre la foog nga wax waxu wax ju rëy. yoo mm-hmm. xam ni seetoo ci yàlla. ay kàcc kese la amul benn njariñ askan wi mais comme rëy na. te ñiy jaayit lu rëy lañ bëgg a jaay. Mm. <laughs> ñu fësal ko mais du du du du am benn solo. te nag pour am réew jëm ci kanam ay solo ay solo yu solo yu nuy taxañ di boole wàllu science wàllu xam-xam wàllu économie wàllu ñoo xam ne ñooy créer emploi ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi dans le concret ñoom ñooy jëmal réew kanam mais du waxkat yi mais mala malheureusement réew mi léegi wax ba jël a fi am dootul jëf ba jël. Mm-hmm. wax ba jël ku ku la dàq rëy làmmiñ ba pare nag kilifa yi boole ci ak ragal ñi rëy làmmiñ ñi gën a rëy làmmiñ ñooy wax ba xoqatal leen ñu jox leen i mbir waaw même suuf si ngal nii nii nii rek ku ci gën a rëy làmmiñ ci suuf soosu ñu wax boo ko gëstoo am na ca terrain <laughs> finalement tu te dis quoi ñan lañ bëgg a nax qui est fou dans ce day mm-hmm. compliqué day ah, compliqué par yenn saa yi xalaat ba ba yow sax biir xalaat yi yow da nga cee mujjee wax day méngoog jëf mm-hmm. mais sinon ay naxee lay doon te naxe nag mun nga nax nit ñi benn instant mais mënoo ko tout addina àddina nag dëggay mujj fen du mës a mujjee mbir yi dëgg koy mujjee. dëgg la dëgg la xam naa ni euh, ñoom professeur rek ñoom ñëpp ñu ngi ci ligne bi tey kan nga war a am ci ligne bi. waaw bu weesoo euh, correspondant yi. Mhm. parce que il faut que ñuy dem ci gox yi. Mhm. yow fan nga fekk baax. man euh, Saint-Louis samay imam euh, baaxoon nañ Bakel bokuna fa euh, fi nga bon citoyen universel man africain la. <laughs> dina ak mm. présidente Innocence Tab Ndiaye pourtant mu may def signe ngeen rappeler Aliou waxal réalisation haj ay réseau au mhm. national ou mhm. social. Mhm. social plutôt dafa am solo dialogue xam nga loo gis dañ koy waxtaanee. Mhm, mhm. lu ñu fi waxtaanee rek buntu feeñ waaw lu ñu fi mas a waxtaanee ca nangu dëgg suñu biir jëlal exemple littoral bi gaa yi ba ñu xëyee yuuxu parce que amoon nañu ñu def ay jalgati yu jaarul yoon ba ñuy wax naan volcan beeg bu ñu ko laalee volcan ba <laughs> bis bu ñu fi yee volcan danañoo xam ne yaru rek am solo ak ak tey ak nite waaw. yow àddina bi yàlla moom ko tukkilu ko yow nga bëgg a tukkil waa àddina Sénégal laal volcan laal volcan <laughs> fii tukkil sunu réew mi. xanaa du mooy loo xam boo ko laalee. Eh, eh, eh, day tàkk ak tàkk. waaw mu ngoog yow yow yow yow luy nelaw ñun dèjà fitna fitna rek day nelaw ñu koy yee. léegi yee volcan nu dese nañ dem ba xam réew mi nag moo tax foofu la autorité yi war dul xaar yenn yi dafa am yoo xam ne Abba c'est très c'est même par rapport au port du masque là gis nga on parle de santé publique bu nu masque la nit ñi ñu ne dañuy dem di dindi seen masque mais na gis nga réaction fay tolloog affront mhm. nañ dem jëflante ak ñoom ñu tak masque par force pour ne pas contaminer les autres mhm. masque mhm. laa gi dafa kilifa mun nga mun ngay waxtaan mun ngay fexe ubbi buntu mais do ñak fayda il faut remettre les choses à l'ordre à l'endroit nit ñi xam ne réew mi daa am yoon le sénégalais est très réfractaire à la loi boo seetloo loo fi teg ne loi nit ñi ne dañ koy jalgati mais di ko def sciemment c'est-à-dire que réewoon rek di bonde di mais quand même te ñu ne am na ay kilifa fii ci réew mi. ñu def ay yëfi on s'en fout. waaw. Mm, ah. mm, mm. on s'en fout nag boo ko defee on doit se foutre de toi. <laughs> daa mel ni euh, dafa mel ni fi ñu nii ligne bi yëpp yemb na bàyyi ma bàyyi la nga doxal ah. euh, man ma dem wàcc émission bu mag bi. nii moom damay jaar nii rek di bi hmm. Hmm, heure bi moom damay jaar di la rek mais émission bu mag bi laay préparé. ku ne ak sa émission bu mag nag. yow ban mooy sa émission yow am nga am nga say auditeur de. Hmm. ñoo xam ni ñoom Abba la ñuy xaar. am na ñoo xam ni. man la ñuy xaaral. Mhm. Oustaz Mor. Mhm. Babacar RFM matin. Mhm. kon mbir mi loolu la. gis nga seenu asamaan. ku tax nga ne fii di buuxante <laughs> ak ak di gaaruwaale sa mag naan émission bu ndaw bu tuuti voilà à tout à